discours yi nga xam ne moom lañ fi dégg mooy li nga xam ne xamoon nañ ne bu ñëwee moom lañ fi fekk mais dafa fekk ni dafay baax toujours ngay féddale Sénégal dafa doon dëkk boo xam ne ñi nga xam ne ñoom la ñuy fal dañuy xaw a juum yaakaar ne dañu jël pouvoir bi yëpp jox leen ko alors fi am pouvoir boo xam ne ñi fi nekk demuñu élection ba ñu fal leen waaye seen taxawaay seen taxawaayu maam ak seen taxawaayu bopp. dafa tax ñu am cër boo xam ne moom lañu leen jox ci réew mi mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekk ay chef religieux mooy ñi nga xam ne ñoo nekk Touba te boobu ba léegi ñu taxaw ci taxaw boo xam ne dafa mucc ayib classe politique gu Sénégal foo leen dégg coow am bu ñu waxtaanee seen biir ba jubóo ñu dañuy dem ci këru diine kër gu mel ni tuuba waxtaan ak ñoom jële fi ay pexe yoo xam ne mooy tax Sénégal continuer jëm kanam koo xam ne nag mënal na la loolu boo nekkee ci guuta boo nekkee ci jàmm amoo benn problème aussi da koy seet si waxtaan ak moom mu xelal la ngeen bokk xool nan ngeen di fexe réew mi jëm kanam tey dafa am loo xam ne yàgg naa ko wax mooy ce que j'appelle les angles morts xam nga ñun dañu dem rek tubaab bi ni mu ñu joxee ne noonu la dëkk bi war a fonctionner ñun noonu la ñu nekkee di fonctionner maanaam dañu donn ci tubaab yi loo xam ne nekkul ñun li nga xam ne mooy ñun dëgg mooy ñoom Serigne Touba li nga xam ne moom la ñu def ñu fekk ko Touba mënoon nag doxal réew mu mel ni Sénégal nga ne ñi jàng français rek ñoo koy yor ñi nekk ministre rek ñoo koy yor ñi créer entreprise formelle rek ñoo koy yor dafa am ñu bari ñu ci bokk ñoo xam ne kenn bindul seen tur ci fenn kenn bindul seen tur ci constitution yooyu ñooy kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di ñu xelal di ñu wan yoon gouvernement boo xam ne nag am nga intelligence bëgg réew mi jëm kanam da ngeen leen ciy boole moo taxoon ñu ñëw fi Touba tey. feddali suñu kóllëre ñu ñaanal ñu ñaanal Sénégal te ñaan yi ñu fi ñaan yëpp mooy Sénégal jëm kanam Sénégal nekk ci jàmm. yàlla dogal na man maa nekkoon coordonnateur coalition bi ñuy wax Aar Sénégal dem nañ élection waxtaan nañu ak askan bi askan bi am na lu mu ñu jox cërali ñu ko muy benn député am na ñu mu jox leneen damay faral di wax nag te ba élection yi jeexee ba léegi loolu laay wax. mooy le peuple a toujours raison askan bi kenn du xëccoo ak moom bu la joxee ak benn da ngay xam ne benn jox bu la joxee téeméer nga xam ne téeméer la la jox benn boobu ñu jox nag dinañu fexe taxawal ci sénégalais yi ba ña nga xam ne ñoo amoon ci ñun confiance votel ñu du ñu euh, confiance boobu du deñ politiciens yi nag dañoo bëri coow. mais politiciens itam des fois il faut ñuy xool ci sénégalais yi parce que dëkk bu tolloo fi mu toll nii nga xam ne coow li bari na ci mbirum mandat lekk bi cher na dund bi seer na dëkkuwaay yi fay loyer yi metti na mbënd mi ñëw teguwaat ci sa kaw askan bu mel noonu bu bàyyee yitteem yëpp dem élection voté parce que dafa am yaakaar ci 165 députés yi 165 députés yooyu dañuy fexe askan bi bañ leen gën a gore ñu xam ne 17 millions de sénégalais nga jël ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ne leen yéen ñu taxawal loolu du yëfu caaxaan boo fa demee danga nga war a wane xam-xam da nga war a wane kilifteef da nga war a wane fulla da nga war a wane fayda pour sénégalais yi nga xam ne da nga taxawul di leen liggéeyal ñu bañ la jéppi ñu ngi ñaan nag li nga xam ne ci lañ jël altine yàlla na yàlla def bopp élection yi jeex na ñu jublu ci liggéey parce que nag Sénégal boo xoolee ba léegi depuis décembre amuñu premier ministre depuis quelque temps amatuñu assemblée nationale président de la république saa yu ko neexee mu tukki te battalewuñu ak kenn sénégalais yi liggéeyuñu liggéeyuñu lu mat a ngi nii juróom-benni weer jëm ci kanam élection yi nag jeex na ñu teg loolu yëpp ci suuf ñu liggéey pour Sénégal mel ne am boo xam ne peuple bi également lancé est ce que nga peuple bi askan bi signal bi nga xam ne lancé na ko signal boobu ki nga xam ne moo ko war a jëkk lire mooy président de la république bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi juróom benn fukki ak ak ñaar fukki assemblée jaar nañ fi ak ñett lii mooy fukki assemblée ak ñeent bi ñi fi mas a jaar ñëpp ku fi ñëw askan bi la lay tànn la ne yow yaay président de la république ñu dem assemblée nationale mu jox la majorité ne la jox naa la député yi gën a bari pour ñu liggéey ak yow bii pas nag pour la première fois ci suñu histoire politique askan bi dañu ne président Macky Sall jox naa la pouvoir nga nekk président la république mais jox naa sa ay nawle beneen pouvoir boo xam ne tolloo na ak sa pouvoir ngeen ànd doxal donc loolu président la république Macky Sall bu ko comprendre mooy dafa war a yaatal dënnam xam ne la ñu ko joxoon mu nekk téeméer xaaj nañ ko ñaar mu nekk juróom fukk que mu woo ñi nga xam ne ñooñu askan bi dafa leen woo pour liggéey ak tekkiwul ne ñooñu ñoo bëgg a ñëw fekk si ko mais dafa fekk ne askan bi moo ko cax nekk na ngay doxale doyuñu ci 100 pour cent xoolal ñeneen ñoo xam ne mën nga ànd ak ñoom nga liggéey ak ñoom pour que fukki weer ak juróom mbenn yi nga xam ne moom moo ko desee pour mu jóge fi bañ a nekkati président mu bañ a nekk xuloo ak xiiroo ak ŋaayoo donc président de l' assemblée nationale président Macky Sall président de la république moom moo war a xam lan la ko askan bi cax ñu ñu ngi xool di xaar est ce que loolu comprendre na ko wala comprendre ko bu dee comprendre na ko gëm naa ne Sénégal ñu ngi jëm ci bés yoo xam ne dina neex bu dee comprendre ko nag mujj gi ku jéegi dina continuer def na mu daan def te loolu bu soobee yàlla doon intérêt Sénégal. Thank you.